kon directeur la ñu ngi koy jox imam Omar Diallo mu joxal ñu ko délégué quartier Thierno Fall. Muchas provecho Serigne Mansour si ñëw na fi mag na kër dem seeti ko fekk mu doon nuyu si ab aw turandoo muy Mansour Dioum ba yaramam tàngee mu ne ana rajo daayira bi mag ñi sëgg parce que boobu amuñu daayira ca ëllëg sa ca ëllëg sa mag ñi daje góor gi Ousmane Dieng Alaaji Isma Fall Serigne Imam Mbay ak Khalifa ak Imam Diallo mii toog ñu dem ca sëñ Mansour mu jël ci loxoom lu tedd la bindi daairatu mutahaddina fillah lola di dox ba tay jii kon buñu organiser lu melni grâce moy mag ñaa ko ñaan ñaanu kilifa dugg ci kon dañi ñaan mu gëna jëm kanam rek loxo yi ko yor nak mu jëk mujjewuñu puso bi mu réer ndax tey la gën a taaru tey lañ ko gën a yaatal kon ñu ngi sant daayira bi yépp ci seen taxawaay góor ci jigéen mag ak ndaw ndax bu nu mënee lii kat daayira bi la kon dañ leen di ñaanal yàlla rek mag ña day bu ñu yeewu woon dinañu kontaan kon xam naa guddi na mbay li ma bëgg a wax ci daayira bi ak jaar-jaaru daayira bi wax dëgg yàlla dafa guddi te itam ah war na noo bàkk nag ki nga xam ne moo tax nee na bu dula nag moom dara du am dara ku ne xewu ba nu xojji day moo tax kon nag foofu laa yemale sama waxtaan et eh, maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp mboolem ko fi rot moo xam teew nga heure bii wala dem nga tànk ya nga ñëwee ba dem yal yàlla def ko yiwu adduna wala axira ñi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarakallah jërëjëf Oustaz Omar nga jege si incha allah. ñu ngi leen nuyu ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér wér di rafetlu ndaje bi mu nekk ndaje boo xamante dañ fi tagg tagg yonent bi di waajal gàmm donc waa daayira bi di remercier di am ay remerciement yoo xam da koy def ci ces ces personnes ku ci mel ni Mouhamed Tamsir Dramé mu nekk parrain bi nekk nit koo xamante daal lu fi mbay wax rek jàpp na ci daayira bi ci côté bu ne di remercier encore une fois docteur Adja Fatou Ndiaye ci taxawaay bu mu am ci ci daayira di remercier waa daayira Munaarul Sudur mu nekk daayira boo xamante dañ fay nekk ngir ah, yar ndaw ñi xéetal leen ci ci diine yi lislaam ci ak ci jàngale ah, Ahmadou Bamba di di leen wax rek ñoo ngeen ci ngeen war a ñëw ñoo ngeen koo xamante seen kër la di leen ndokkal di remercier encore une fois waa daayira Moustarchidine di leen ndokkeel si ñëw bu ñu ñëw ak jàpp bu ñu jàpp ci bés bi di remercier monsieur Ousmane Tongane nekk président ISB ci jàpp bu mu jàpp ci bis ak ñëw bu mu ci ñëw di remercier monsieur Abdourahmane Camara nekk président CRAC ci di remercier monsieur Pape Dramé monsieur Touré monsieur Youtou Ndiaye monsieur Maguette Ndiaye waa daayira wilaya wilaya euh, suñu papa Goro Sall teewal leen fi di remercier monsieur Yoroba Yoro Yoro Fall di remercier imam Mounir Niang di remercier waa famille Touré parce que tey ñoom ñoo yombal lii parce que mënoon nañ leen wax dañuy rendre hommage seen seen waajur ñu gàttal ñu ko mais dañ leen di remercier encore une fois si yombal di remercier famille Fall suñu tonton suñu papa muy imam Demba Fall si yombalal bu ñu yombal mbir mi di leen remercier di remercier ñëpp ñoo xamante jàpp nañ si bis bi di joxaat mbay kàddu gi wasalaam. jërëjëf Omar kàddu yi leer na su ko defee. am képp koo xam ni amoon nga yéene egsi bi sax te egsi ñu ngi sant ñëpp gërëm ñëpp sant daayira bi sant daayira bi di sant daayira bi ndax wax dëgg yàlla ñun benn jëmm lañu boo xam ni ci daayira bi ah dañu ñëw rek. luñ ni ay te su baaxee dafa fekk ni ñu ñu àndal ñoo ci ànd suñu ne woon nañ def nangam ñu ne defuñu ko kon lii yëpp du mën a sotti mais yàlla def na ñu ngi ànd di yëkkateendoo di tegandoo loolu nag su ko ay nit amee bu ñu organiser lu mel nii war nga leen sant gërëm leen ñaanal leen yàlla képp koo xam ne yaa ngi ci daayira bi yal yàlla yokk la ci sa wàllu àdduna sa wàllu àllaaxira képp koo xam ne ñëw nga fi. bépp jàngoro boo fi indiwoon yàlla ko yàlla sa waaw imaam mu ne na ñëpp aw ba mu des jigéen ñi jigéen ñi fas leen seen xol fa tabarakallahu seen yéene suñu borom barkeel nee na man ma ngeen fete su fa tabarakallahu sëñ Aliou bismillah macha allah imaam li mu wax am na solo su bàyyi xel ñu ubbee ko Fatiha ñu ci peeru salaatal Fatiha rek ku nekk wax buñ paree ñu def ci bismillah يا رب مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير منك

Merci. Bye.

نفسي والكريم والعزماني وعلى آل جميل ملك مهم والأولاد والوسائل والفخر والنمر والنمر والكريم والسعير والسعير والنمر

أشهد أن

يا رب اغفر لي